man bi ma déggee ñu naan ay Pape Cheikh Diallo góor la dama ne non man góomu loolu. Mhm. mais bi bi jabaram bi mu njëkk a am doomu Aïda Patra. moom njëkk wax na ko dafa moom dafa ñëw ubbi bunt bi. Mhm. fekk jëkkëram ak góor. Hmm? ñaan baat mu takkaat beneen jabar bu dëkk Suède. Mhm. kooku tamit bett ko ak góor kooku ñaan baat. mu takkaat kiyaa bii ma lay wax ni kiyaa. waaw ki mujjee takk. kiyaa bettaat ko ak góor. te ñoom ñett ñëpp dama wax ak ñoom kii dafa wax ak man bay jooy dama ko caa waaw mu ne ma dama li ma métti sama àdduna mooy kii bi muy dugg ci moom. li ma déggoon yëpp góob ma ko mais moom la. allahu ko xamee. xoolal bi ko xamee man. premier jour bi mu ñëwee jox ma jox si loxo. dama téye sama loxo. ah waaw. wala saa yoo laay nuyu de ma ne ko non garaawul. léegi nag gars yi ma na ma pourquoi nga def lii man leen yàlla moo ne boo xamee ne jiw góor ji la bu ko doxoo. allahu akbar moo ko jox loxo te xam naa ko parce que dama ci am ay seede yu ma leer ñu ko séqal ñett ñëpp ñetti jabar yëpp wax loolu yëpp ma ne ko ñi ma wax duñu ay xaritam duñu ay noonam ay jabaram nañu di laa ko bàyyi àddina ak alaaxira mm, yaayee parce que mënoo nekk loo xam ne mm.